في كل قلب من هواه who? Now you can listen to our Fakir Muhammad Sahar Tijani along with the greatest scholars of our time on Tijani International Radio every day at www.icfaonline.com, at www.muhammadsahar.com, by dialing your phone at 401 347 07 941. Or by downloading the Tijani Radio application onto your smartphone or computer. For your questions about Islam, you may call 347 596 2036 or email us at icfaonline at gmail.com. Spread the word by sharing this message with your friends. Wassalam. Wassalam. Wassalam.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 wa radiyallahu tabaraka wa taala an saxaabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala xawla wala quwata illa billahi alali alazim mbokk yu teddi ñu leen di eh, nuyu beneen yoon di leen masaw te di leen ndokkeelati eh, ndax weer la mu nga xam ne ñi bëgg yonent bi yëpp ñuy def lu ne eh, di ci dundale di ci jàng alquran di ci zikr ci julli ci yonent di ci xalaat yonant te nga mbëggeel coono la kon nag ñu ngi leen di masaw waaye coono la bu nga xam ni benn bànneex melul ni moom kon nag ñu ngi leen di ndokkeel rawatina ki ñu bokk bëgg ñun ñëpp sallallahu alayhi wa mu mel na imaam Busiri rahmatullahi alayhi fan yi yëpp mi ngeeg ñun ci yonent ba biig ñu ànd ak moom ci mujizaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa waaye bi mu ñëwee ci mujiza bi nga xam ne dëgg dëgg mooy mujizatu rasulillahi mu beral ko fasl te mooy sharaful quraanil karimi ndax mujiza boo jël ci mujizaatu yonant sallallahu alayhi wa la te comme yonant bi sallallahu alayhi moo gën a tedd ci li yàlla bind kon xam nga mujizaatu yooyu mujiza yooyu taralatuñ ko ci moom la ñuy mujj te amul benn ci mujizaatu yonant bu mën a jox yonantu xaqam ndax ñoom ñëpp ay mbindeef lañu te moo gën a tedd ci li yàlla bind yàlla far jël boppam meloom kii al quran mu defal ko ko muy mujisa xaalida taalida maanaa sifatullahi tabaraka wa taala alxaalida hiya mujisatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam borom téere bi ne daani wa wasfiya ayatin lahu zaharat zuhura naari qiran laylan ala alami am na it ci riwayat yu ko maarifal zuhura naaril qira laylan ala alami daani wacci ma daani bama wa wasfiya ak sama mellal aayaatin ay ayat zaharat yooyu feeñ nañ loxoo ñeel yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam naari qiran feeñuk safaraay bernde laylan ci diggu guddi ala alamin ci kaw montagne boo xam ne bu kawe ayaatu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi jarul wane ndax guddi boo ca taalee làmp mu feeñ mu mu leer rawatina nag safara soo xam ne safaraay bernde la nga xam ne dafay yànji lool bari lool taaluñ ko nag ci ab pakk taaluñ ko ci jànji waaye dañ koo taal ci montagne ba gën a kawe arab dafa bokkoon ci seen aada ña am seen tabe àggoon ci guddi gu nekk dañoo dem ci digg àll ba taal fa seeni safara di fa wajji seeni yàpp dajale fa seeni teraanga ngir tumuranke gu réer fekk ma ngay tukki am na ku ko fa mën a wan yoon ku xiif am na ku ko fa mën a jox lu mu lekk yeggoon nañ ci loolu ba seen moomeef yi muy seen jaam yi dañ leen daan xërtal nan leen àllim yara naaraka man yamur in jalabta dayfan fa anta xurru taalal ñiy romb mën a gis sa safara علم yara naaraka man yamurru in fa dayfan soo ma indilee gan fa anta loolooy tax nga mujj xur nga nekk fa anta yow xurrun gor nga alquran nag feeñ gim feeñ mel na ni feeñu safaraay bernde woo ñu taal ci diggu guddi taal ko ca montagne ba gën a kawe aayaatu muy ay mujisaatam feeñ yiñ feeñ mel na ni feeñu safaraay bernde googu ñu taal ci digg àll waaye ci kaw montagne alxuraan njëriñ li feeñ na ba nga xam ne jëriñ na ku gëm jëriñ na ku gëmut feeñ na ba nga xam ne not na képp koo xam ne fasaaxa nga moo xam jéem nga indi lu mel ni alxuraan walla jéemoo mel ni walla jéemoo indi lu mel ni alxuraan boroom philosophie bu moo bu mu bu moo bu woykat bu moo bu bu taxawee ci kanam alxuraan rek mel ni koo xam ne fa dotom mel ni foo xam koo xam ne fa lu lu jiitu alxuraan arab yi seen muallaqaat yi mooy seen qasaid yu rafet yi dañ ko daan bindee e, ndoxu wurus ba pare aj ko ci kaw kaaba ga naka la alxuraan accès ci ndawam ci wax ci waxit ci ndaw risaalatu yonent bi ba mu jàngee bismillahi arrahmani arrahim iqra bismi rabbika alladi xalaq ba mu jàngee yaa ayuha almuzammilu qumi lleyla illa qalila ba mu jàngee yaa ayuha almudathiru qum fa anzir ba mu jàngee ba mu jàngee ba mu jàngee kenn bëggatu la gis muallaqa ci kaw kaaba gi ndax am na loo xam ne soo ko lekkee neexaa neexaay gaa yi yegg ci loo mosati saf wëcc am na koo xam ne boo ko xoolee taar baay yegg ci koo xoolati mu ñaaw waaw alquran noonu la def ak arab yi ki ñoo tuddee champion du monde moo xam ci wàllu karaté la walla ci wàllu euh, boxe la ñépp wekk ko ñépp yéem ko xale bu juddu amagul deux ans daan ko daañu xam ni xale bii moo dul kese-kese waaye terewul jàmbaar di jàmbaar fusaxaaul arab fasax nañ lool de bulaxaa'uhum am nañ balaaxa lool de waaye ci kanam alxuraan nag ñoo ko mëndagul a wax ñoo am feeñaayu alxuraan moo tax seen feeñaay mënatul a feeñ sondeel de lu mu mën a takk takk lu mu mën a leeral leeral soo ko taalee ci digg bëccëg ci ron jant kenn du yëg ne sondeel am na bal lu ëpp sondeel sax kenn du ko yëg daani ba ma wa wasfiya ak sama melal ay aaya waharat yooyu feeñ na lahoo ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zuhura naaril qiraa feeñuk safaraay bernde laylan ci guddi ala alamin ci kaw wada aji kawe ala aadatil arabi mu ne fa durru yazdaadu xusnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran gayra muntazimi fa durru wurusu durru yazdaadu dana yokk xusnan ci taar wa huwa ta moom muntazimun aju noosewu la wurusu durru buñ ko defee ci caq ranger ko dana wone taar ba de waaye walay sa yanqusu du wàññeeku nag xadran ci daraja dayoom du wàññeeku xeyra muntawimi fekk nekkut di aju noosewu yonent bi sallallahu alayhi wa boo boolee mujisaatam yépp ci téere boole leen ñoom ñépp ci barab dana feeñal rafetaay ga de waaye boo beroon mujisa bu nekkit du tax mu wàññeeku ci daraja ayaatu alquraan yi niñ leen noosee fatiha baqara ali imran nisaai maidati lanaam laaraaf lanfaal tawba yunus huud yusuf raad ibrahim xijri naxli lisraai kahfi maryam taaha lanbiyaay xajji muminuun ba naas feeñal na taar bi de waaye bu ñu beroon saar wu nekkit mu rafet saar wu nekkit nañu noosee aaya feeñal na taar bi de waaye bu ñu beroon laaye ju nekk ci alxuraan du tax rafetaayu alxuraan wàññeeku naka noonu yonentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ay mucjisaatam ak ay meloom noose ko ci wëy woo xam ne borom faam balaax ni buusiri dana wane taar de waaye su fekkoon tudduñ ko du tere yonent bi sallallahu alayhi ay meloom rafet du tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay mujisataam rafet ay mujisataam ay mujisaatam yéeme wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla jox ci mujisa wane na baaxaayam de waaye suñu wanewul woon benn ci mujisaatam yi it du tax yonent bi wàññeeku ci daraja ndax wax naa leen ne mujisa yi ñooy amee daraja ci moom waaye moom du amee daraja ci ñoom ndax mujizaat yi yépp ay mbindeef lañ moo xam weer wi ko xottil la moo xam rañaane gi fam jaar yépp yéeg gi fam jaar yépp moo xam jant biñ ko téel la moo xam mbëtt mi wax ci kanamam la moo xam garab gi nga xam ne moo ñëw su jootal ko la seedeel ko risaalatoom moo xam eh, eh, ëkk ba nga xam ne wax na binni ak jooy moo xam koj biir ak kéwal ga nga xam ne wax naak moom seddeel ko risalatoom moo xam eh, dégg nga ndox mi nga xam ne dëkk na loxoom rek ndax ma wàcc mu dékk loxoom ndox ma arrêté moo xam laal gi muy laal eh, yaram yi ñuy wér ñaan yim leen di ñaan yooyu yëpp ay maxluqaat lañ te wa huwa ashraful maxluqaat benn mujiza rek sallallahu alayhi wa sallam a jàggoogo moo ko jox xaqam moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam mooy mujizatul quraanil karim mooy mujizatul quraanil karim soxna Suzanne alayhi salaatu wassalaam gis nañ ko fa durru yazdaadu xusnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran gayra muntazimi xam nga lu tax parce que mu yonantu sallallahu alayhi wa sallam tedd nga am zaati la tedd ngam duut li ko yàlla jox waaye ni ko yàlla def la sallallahu wa sallam maanaam jëmmam moo yore tedd ngam moo tax lu ajoo ci ca jëmmu je ci mbindeef yi fay teddee ci yonent bi waaye yonent bi du teddee ci loolu moo isa mi lu mu rëy rëy nag gannaaw du melaw yàlla ki alquran moo tax soo ko ràngalee maqaamaat yi mu am yëpp mu rafet lool waaye soo dindi woon maqaamaat yooyu yëpp moom ci boppam moo ëpp maqaam bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi moo tax gis nga may du wane fonkeelu yàlla ci nit mën na am mu wane ko nag xañ du wane fonkadik yàlla nit mën na am nag mu wane ko ñun nag foog nañ ne ki yàlla jox alal dégg nga jox la euh, poñetu àdduna jox la nguur foog nañ ne kooku mooy ki yàlla fonk fa amma al insaanu ida mabtalaahu rabbuhu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana fa amma al insaanu ida mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naamahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma ida mabtalaahu fa qadara alayhi fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana yàlla ne kalla doomu aadama su ko yàlla joxee mu ne yàlla teral na ma yàlla ne déedéet jox gi taxul nga nga tedd de su ko yàlla nattoo xañ ko mu ne yàlla doya dal na ma déedéet yàlla xañ la taxut muy nattu de taxut muy doya dal de waaw donte ñaar yëpp sax nattu la moo tax ida mabtalaahu ibnu ataailaayi mu ne jox su àndut a dégg mooy jëmmi xañ waaye xañ su àndeeg dégg huwa aynul ataa'i mooy jëmmi ak joxe moo tax e, di gis waliyu bu yàlla def ci moom màndargay wilaayatu nit ñi xam ko lool mu siiw lool nga gis fii benn waay boo xam ne foog nga ne Samba Boy la amul benn màndargaam wilaayatu kenn faalewu ko te fekk moo gën fuuf kañu jox cër ki wala sax moom ci barkeem lañ joxe ki siiw ki cër moom la ñuy tuddee al mashhuroon vi barakati masturin waaw ñu siw lool te ci barke ñi nëbbu jàmm ñi lañ amee li ñu am am na wali yoo xam ne yàlla dafa nay ci ñoom ba bëggul kenn xam leen ba boo leen gisee di nga ji seen kanam ñuul kukk yow lëndëm tërës ba nga foog ne amul dara fekk mu ëpp wilaaye ci jaamu yàlla yi nga dajal yëpp waaye yàlla moo ko nëbbu jaam ñi nga gis ku kanamam leer nga am ci moom yaakaar mën naa am sax ca kanam yàlla du dara daa gis koo xam ne ci nit ñi jant la waaye boo demee ci yàlla ah, kenn xamut lan la ci nit ñi jibril la waaye boo demee ci yàlla ak golo la nga gis koo xam ne ci nit ñi matul sax golo waaye ca kanam yàlla moo doon ma maqaam rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam fii nag mi ngi ñuy wan ne yonent bi buñ ko tuddalee yi ko yàlla jox yépp mu rafet waaye suñu ko tuddalul woon dara it yonent bi yonent rek la sallallahu alayhi wa sallam sister Sophia we give you our salam fa durru yazdaadu xusnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran gayra muntawimi fa durru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy wusu wurusu yes yasdaadu dana dolleeku de xusnan ci taar wa huwa ta moom muntawimun aji e, noosewu wula ci caq walla walaysa yanqusu waaye du wàññeeku mukk xadran ci dayo moom wurusu durru kii yonent bi gayra muntawimi fekk wut ci caq niñ ko misaalee ci amthile yi passé sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mu ne ku mel noonu nag famaata taawulu famaata taawulu amalil madiha baax na famaata taawulu amalil madixi baax na فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم صلى الله عليه وسلم koo xam ne mbiram nii la mel fa ma tatawulu amalil madih ana yuqoolu mébéeti aji tagg ji xam nga amal di nga def effort bokk la taman nii borom du def effort dafay mébét rek waaye ah, bii nag loo def def effort yow ki koy jéem a tagg wala tagg gi ci boppam sax almataxi si bi ñu koy bi bi ñi nga xam ne moom la ñuy tagg yonent bi ngir jéem a wane ku yonent bi mel nu yonent bi toll moom mooy kan mu ne yu xoolub tagg googu ana lu muy do nu muy day ila ma fiihi jëm ca la nga xam ne nekk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa min karamil axlaq ci tedd ngay jikko wa chiyami ak jikko yonent bi sallallahu alayhi dañuy wax ne <clears throat> Euh, euh, al euh, jukko la waaye mooy boo xam ne maanaam tabia la chiyam ak axlaaq yépp mën nañu nekk mutaradif comme mën nañu wuuteew waaye ci lafz wuutee nañ waaye almuhaqiqoon ne nañ ci maanaa benn lañ mi ngi mel ni salawaat wa rahma wuutee nañ benn lañu yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam imam Buusiri nee na fama tatawulu amali yi ana yuqoolug sama mébét yi ma mébét almadiha tagg ko tagg gi ma koy tagg dama ci wuta wane sama mbëggeel nim toll mais sama mbëggeel nim toll sax tagg gi mënu koo wane ana kon tagg gi ni muy wane nan la yonent bi toll sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne yàlla ko tàgg ne ko wa innaka la ala xuluqin azim azim azim yamdaxu aziman koo xam ne jikkoom dafa màgg te ki ko wax mooy ki amul dayo ci màgg muy yàlla subhanahu wa taala kooku loo koy loo koy tàggeeti waxuma la dafa màgg jikkoom waaye jikkoom sax dafa war màggaay wa innaka la ala xuluqin azim loolu la ko yàlla wax te ki ko wax moom mooy ki màgg ki moom yàlla subhaanahu wa taala yàlla al azimu yasifu al azima bil xuluqi al azimi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ku yàlla wax laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufu rahim wa fi qiraatin min anfusikum sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne yàllaa ko wax inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiran wa daaiyan ila llahi bi idnihi wa sirajan muniran koo xam ne subhanahu wa taala moo ko ne wa duha wa leyli ida saja maa waddaaka rabbuka wa ma qola wala laaxiratu xayrun laka min alula wala sawfa yuctika rabbuka fa tarda koo xam ne yàlla ko ne inna aataynaka al kawsar tax kawsar kenn xamul nu mu toll bu dee dégg ba bu dee aljanna la bu dee xeetam wi la bu dee njabootam lépp mu jox ko ay kawsar bu dee yiw lu mu mu rek mu ne ko jox naa la al kawsar ala wazni fawaal kenn xamul mubaalaga boobu nan lañ koy mesurer waaw ku yàlla wax loolu eh, naka naka naka lañ koy tàggeeti naka lañ koy melaleeti waxuma la melow biiram waaye melow bitim sax ñi ko doon tagg ak di ko melal yëpp kenn ci ñoom xamu ko da ngay gis rek ñu naan ka annama ka annama boo koy xool da ngay foog ne jant bi moo tappi ci jëwam gi rek ndax leer da foog ne eh, bakkan bi dafa gudd ci kaw ndeke waaye leer gi jokk ci bakkan bi jëm asamaan la baat bi dafa mel ni dégg nga wurus dafa mel ni baraaday xaalis dafa mel ni seetu tubaab dafa mel ni rek la ñuy wax ba léegi xamaguñu nan la mel sallallahu alayhi wa to te loolu mooy biti gi kat waa biir gi kon nan lañ koy waxe mu ne fama tatawulu amali ana yoqoolug samay mébét almadiha tagg ko ila ma fii ba wane li nekk ci moom ila ma fii ba mën a jot li nekk ci moom min karamil axlaqi ci baaxu jëkkawa chiami sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa sallama mu ne ayaatu xaqin min arrahmani muxdathatun qadimatun sifatu lmawsuufi bilqidami ma ashcarahu radiallahu tabaraka wa taala ayaat yi ma wax ne bàyyil ma mellal ko ayaatu xaqin aayaay dëgg lañu min arrahmaani yu tukkee ci borom bi ki nga xam ne moo yërëm ki ko topp moo yërëm ki ko bañ a topp bokk na ci mujizaatu yonent bi la bëgg a wax ayaatu xaqin wala moom rekk la sax ndax yi fi newoon yëpp dem nañu ba mu des moom du dem mukk dana ko wax ci kanam yoo xam ne nag muxdathatun yuñ sos lañ min arrahmaani ay bi nisbati lil alfaadi qadimatun waaye naka jekk lañu ndax lan sifatul mawsuuf melow yàlla miñ melalee la bil qidami ci naka jekk la aayaay alquran melow yàlla lañ yoo xam ne ni yàlla nekkee fi naka jekk ndax awaliyatuhu tanfi alibtidaa wa axiriyatuhu tanfi linqidaa subhanahu wa taala xam nga yàlla li mu may ñépp mi ngi woon ci xam-xamam azalan wa abadan waaye mu sosu bi nisbati lana waaye nag miracle alquran bi mu jox yonent bi kenn du wax ne mi ngi woon ci xam-xamam asalan waaye meloom la sallallahu subhanahu wa taala bi mu koy wàccee nag ci yonentu sallallahu alayhi wa ñun ñu koy jàng muy lugal arabiya foofu nag la sosu di amee moo tax mu'tazila ak ahlu sunna seen xeex bu metti bi jaru ko jaru ko jaru ko woon te xaw nañ ci rey Seydina Ahmed ibn Hanbal moom it mu taxaw rek ci position waaye ku nekk ci ñoom ñaar xaysiya bi nga doon waxee bu in saxa taabiru wér na ndax boo ne alquran dañ ko bind ay bi nisbati lil arabiyati walil alfaadi parce que lugal arabiya dañ ko bind waaye nag lugal arabiya dafay exprimer wu dafay wane maanaa alquran bi nga xam ne sosuwut melow yàlla la kooku nag yonentu sallallahu alayhi wa moo ci am accès ñun amuñu ci accès moo tax bu daan wàcc ci moom nga gis na muy yëge waaye buy génn ci moom nag war a génne alfaaz arabiya yi ko yàlla yenkawal mu génne ko ci moo tax mu tuddee ko muhdasa qadima muhdasatul bu fekkee ne ñun ñu koy Eh, eh, eh, jàng muxdasatun lafdan maa yaatihim min aaya min dikrin min rabbihim muxdas illa stamauhu wa hum yalaabuun am na ci beneen nas nusxa sax tuddul muxdasa dafa wax muxkama ayaatu xaqi min arrahmani muxkamatu yi da ay alquran lañu yu jógee ci yàlla du yu ñu xereñee kitaabun uxkimat ayaatu yàlla tudd na ko Eh, mawsuufatun ah, eh, qadimatun sifatul mawsuufi eh, bilqidami subhanallahi tabaraka wa taala mu ne alquran lam taqtarin bi zamanin wa hiya tuxbiruna an ilmaadi wa an aadin wa an irami alquran lam taqtarin ayaatu alquran lam tabtarin lëkkaloowuñu bi zamanin ak jenn jamono waaw alquran lënkaloowut ak jamono wahiya te ayaati alquran yi tuxbiruna ñu ngi ñuy xamal an il maadi li war a xew suba yowm alqiyamati wa an aadin ak li xewoon démb ci ñooñ aat ak waan iramin ak ñoom iram mooy seen maam wala ñu ne aat beneen la alquran wax na ci li war a xew suba wa huwa alladi yabdau alxalq humma yuiduhu mooy wax na yi tamit yahudu ma jitina bi bayinatin ci ñooñ aad ak yàlla ne alam tara kayfa faala rabbuka bi aad jamono yi nii yëpp duuloon jamono yi nga xam ne fekk na alquran génn ci jamono mooy du jamono yonent gi alxuraan wàcc te terewul alquran wax nañu la ca xew jamono ji muy wàcc ci yonent bi fekk na lii xew tey nii ñëwaguloon ak lii xew suba gannaaw dee te alquran wax nañu ko loolu li muy firi mooy alquran bu baat yi ñëwee di baat yu sosu ci lugal arabiya alxuraan dëgg-dëgg du lu sosu moom melow yàlla la ca azal ba abad te yàlla nag gannaaw moo bind jamono lu xew ci jamono ak lu xewoon démb ak liy xew ak lii xewi suba yépp xam na ko moo tax mu xabaare ko alxuraan moo tax mujisa bi gën a am doole ci mujisaatu rasulillahi mooy mujisatu alquran alkarim tudd na aad tudd na iram aad ñu ne giir la goo xam ne seen bàyyi lañ leen tuddee mooy aad ibnu uus ibnu iram ibnu saam ibnu nuux am na ñu ne iram turu dëkk bañ dëkkoon la ala kulli xaalin yàlla tudd na ñaar yëpp ci alquran alam tara kayfa faala rabbuka bi aad irama zaati l imaad mu ne ayaatu alqurani daamat ladayna fa faaqat kulla mucjizatin min annabiina id jaat walam tadumi daamat ayaati alquran yi nga xam ne ijaaz amee na ci sax nañ la day naa fa ñun fa faaqat ñu kawe kulla mucjizatin bépp mujisa min annabiyin ci mujisaatu yonentu yu jiitu woon id ngir jaa at dikk nañ walam taddumi te saxuñ ana yetu sayyidina Musaa wa alquran wax nañu ko gëm nañ ko waaye mënoo ko wane physiquement ana gaalu yontu yàlla nox ga ko wane ana safara yontu yàlla ibrahima mënoo ko wane ana dundalu gi Isaa way deeya mënoo ko wane ana jënu yunusa wa mënoo ko wane ana géntu yusufa ga mënoo ko wane ana ana ana ana lu tax mooy yonent yooyu yëpp ku ci nekk dafa am ci jamono buñ la yónni woon ci xeet wuñ la yónni yoon woon ngir benn purpose dañ la yónni to a people for a period of time yonent bi nag sallallahu alayhi moom la yàlla yónni to everyone to everywhere forever yàlla daf ko yónni ci ñépp ci fépp ba faw moo tax ñoom bañ gaañoo bañ fi jógee la seen mujizaat yi ànd ak ñoom seen téere yi leen yàlla joxoon mu may nit am kattanu ak dugal ca loxoom def ca lu ca bokkul waa génnee lu ca bokk waaye comme yonentu nag moom eh, mission dafa universelle te dafa éternel ah mujisa alquran mu bàyyil ko ko fi abadan ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi inna nahnu nazalna inna nahnu nazalna dhikr wa inna lahu la xaafidun gis nga ñun dañ ko war a mokkal ndax mooy suñu participation ci xifd gi waaye du looloo koy wut ndax xifd gi xifdun zaatiyun yàlla ci boppam moom meloom la te melow yàlla du soppeeku waaye bi mu wàccee eh, maanaay waxam jooju nag ci lugal arab yi it baat yooyu it mu wattu leen ba kenn mënu caa boole lu ca bokkul kenn mënu caa génne lu ca bokk mu ne yonent bi ay aayaatam des nañ fi moo tax mu kawe bépp yonent ndax ñoom seen aayaat yi yëpp de baax nañ ñoom ñëpp de kawe nañ ñoom ñëpp de ay soppe yàlla lañ waaye bañ fi jógee seen ay ànd ak ñoom jógee fi ja daamat la day na fa faaqat kulla mujizatin min annabiyina id jaat walam tadumi muhakkamatun fama yubqina min shubahin lidi shiqaaqin wa ma yabghina min xakami muhakkamaatin yu ñu atte loola wala muhakkamaatin aaya la yoo xam ne da ko dañoo dikkee yàlla daf leen dikkee def ci ñoom xikma def ci ñoom sages def ci ñoom wisdom yaasin wal quran alxakim def ci ñoom ñuy tudd xikma dégg nga ni nit wala kuy dund di tuddee xikma yàlla ne aaya yi muhakkamaatin aaya yu ñu xereñee lañu yu ñu atteloo lañu ba Euh, maa yabgiina du ñu atte du ñu sàkku min xakamin ku leen attee li di shiqaqi ñeel koo xam ne dafa wuteeg dëgg ku mooy dëgg alquran soxlawul attekat externe wala extérieur bu bu koy atte ndax lii atte digganteem ak ki koy dingat mi ngi ci biiram mu muhakkamaatun tamit fa maa yubqiina duñ desal min shibahin min shubahin benn lënt li di shiqaaqi koo xam ne dafay ŋaayoo koo xam ne dafa eh, génn topp dafa wuute ak dëgg alquran yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wax na ne yonentu bu nekk yàlla jox na ko loo xam ne lu tol ni moo loola eh, ñoo koy gëm ci mbindeef mu ne yàlla nag jox ma wax yu goo xam ne e, wax yu na ma ko ma yaakaar ne nim toll ci bariwaayu barke ak mbaax sama woy topp yowmal qiyaamati ñooy gën a bari ayaat yooyu nag li ñuy bari bari dara loo xam ne nii lu jàddu yoon new ca képp koo xam ne yi tamit yaa ngi koy jéem a diingat ayaat ya de xereñee nañ ko xereñeñ goo xam ne dana la uh, woo ci wisdom ba nga xam ne amatuloo dara loo dese loo koy reproché ci lënt bu dee it danga soxla ku la àtteeg moom wala ñoom la leen di àtte ña ca ndax Qur'an xakim la muhakkamaatun فما يبقين من شبه لذي شقاق وما يبغين من حكم moo tax ما حربت قط إلا عاد من حرب أعد الأعادي إليها ملقي السلم ما حربت kontu reefut ko ba xareek moom xattu mukk mooy kenn du jóg diko ko wala di ko xare ne dinaa indi lu mel ni moom illa aada lu dul dana dellu aadal aadi gën jaatar ji noone ci noon yi min xarabin ngir jafe jafe contre alquran ngir jafe jafe xeex alquran ngir impossibilité indi lu mel ni alquran dana dellu ileeha jëm ci aaye alquran yi mulqiya di aji sànni jàmm mooy di aji jébbalu rek rajaa mustasliman munqaadan li ajzihi an muaaradatiha bu ko yàlla dimbalee mu ñëw gëm ak bëri ñu doon jéem a jéngat alquran bañ demee ba xam ne alquran ji wax yàlla la yàlla jox leen tawfiq ñuy gëm am na ak bëri ñu ko doon jéem a jéngat dem ba xam ne mënuñoo indi lu mel ni moom ñu sippi seeni arme seeni arme waaye taxut ñu nangu ndax noone ak añaan ku mel ni musaylimatul kadab fenkat ba ba muy topp ndara wa naaziaati xërqan boo ko gisee da ngay da ngay da ngay reetaan sax wa taaxinaati taxnan wala ajinaati ajinan wala xaabisaati xubsan xam naa séeréer la woon ma nga ca lekk ya rek ñi dëbbkat yaag làcckat yaag defarkatu loolu kenn mos na kenn mën na ko comparé ak wan naziaati garqa wan nachitaati nachita wa saabixaati sabaxa fa saabiqaati sabaqa fal mudabbiraati amra yowma tarjufu rajifa tatbaa radifa gis wax naa leen ni ñu meloon ci fasaxa ak balaaxa arab ni ñu meloon ci chaar bu ñu loroo bay wut arme di xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est que wane na seen ajz parce que noppiloo yonentu ki mosta jàng noppiloo yonentu ki mënta bind turam mën a liir te ci liñ gën a mën la leen défier su fekkoon ne lëf li du dëgg konoon duñ ko xeexee euh, jaas yi duñ ko xeexee fet liñ koy xeexee mooy xam-xam waaye ba mu jàngee rek ca lañ xam ne lii kenn mënu ko xeexee lu dul pexe wala jëm ko faat benn yoon waaye xamuñu ne ka def loolu ah moo koy aar wax nañ leen ko démb wallahu yaasimuka min an nas moo tax mujisaat yi mënuñ ko liggéeyal seen bopp eh, la ñuy jox daraja ci liggéey gi ñuy liggéey ci xadara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla moo ne ko maa la musal moo tax ba ko gàtt bi naan ko bu ma lekk dañ ma tooke gàtt bi eh, dafa bëggoon maqaamam kawe waaye mënul musal yonent parce que yàlla moo ne ko maa la musal kon kon kon gàtt eh, buy wax mënu ko musal waaye dana wane nag kii ay kan fa durru yasdaadu xusnan wa huwa muntazimun walaysa yanqusu qadaran gayra muntadimi ni mu ko waxee ci ginnaaw waaw moo tax maa xawribat xareefut ak aaye yi xattun mukk xattu mukk illa aada lu dul dellu na min xarabin ngir tattat aadal aad yi gën jaa noone ci noon yi ilayha ci aaye yi mulqiya salami de aji sànni ak di aji sànni jàmm di aji jébbalu wa alqaw ilaykum salama waaw mu ne raddat balaagatuha daawa muaaridiha radd alxayuuri yad aljaani an alxurami raddat ah kooku de sharifatul xayri la soxna si macha allah tabarakallah yaa booy raddat balaagatuha daawa muaaridiha radd al gayuuri yad al jaani an il xurami raddat delloo na balaaxatuhaa balaaxaay aaya alquran éloquence am daawa muaaridiha wootee aji dingat ko raddal gayuuri comme delloo gi ku fiir lool di delloowe yadal jaani loxo aji tooñ ki jalgati bëgg a violer walla ku ko jege mbaa bëgga jël alalam mu puus ko anil xurami ba du yegg ca xuram yooyu moo xam alalam la moo xam doomam ju jigéen mbaa mbokkam ju mu jigéen mbaa yaayam la wala nguuram la ku xam ne dafa am xayra ba yi mu baaxle njàmbaaram àgg na ci dooleem àgg na ci mën-mënam àgg na ci képp koo xam ne yaa ngi xalaata jalgati yooyu mu défendre la ba euh, Euh, naka lañ koy tuddee disable nga xam ne dootoo xalaatati jëm ci jéem a jalgati dootoo ko sax mënati alquran éloquence am noonu la def képp koo xam ne jog nga ne yaa ngi koy dingat wala yaa ngi jéem a indi lu mel ni moom wala yaa ngi jéem a xeex mbiram raddat balaagataha raddat balaagatuha daawa muaaridiha raddal gayuuri yadal jaani an ilxuraam ndax loo am fasaaxa loo am am balaaxa boo taxawee ci kanam alquran rek mel ni mosoo xam tus moo tax yàlla def li ñoo tuddee falsification test te ba léegi mi ngi va valable dafa xëy ne Quraysh ak arab yi ngeen ne lii yonentu di waxee waxama te yéen a fi raw ma bëgg nag ngeen fexe indi lu mel ni alquran bu ngeen ko defee rek ma noppiloo ko ñu xam ne du yonant qul la in ijtamaat al-insu wal jinnu ala an yaatu bi mithli hadha alqurani laa yaatuuna bi mithlihi walaw kaana baaduhum li baadin zahira waxuma yéen waaye linsu wal jinnu laa wax qul la in ijtamaat al-insu wal jinnu nit ak jinni yépp bu ñu booloo woon bëgg indi lu mel ni alquran duñ ko mën bu dee sax ñépp ay dimbalante mu mel ni yëf yi dafa diis lool yàlla woyafal ni su fekkee da ngeen sikk ne lii maa ko wax Muhammad indi leen fukki laa fukki saar yu mel ni saar yi ma ko jox qul faatu bi ashri suwari mithlihi muftarayaatin ci suuratu yunus mu ne indi leen benn saar isra indi leen alquran huud indi leen fukki saar yunus indi leen benn saar ci fatiha mu ne lu xaw ni lu niru saar sax bi suurati min mislihi min ma loolu lay loolu lay yàlla nag wax loo xam ne moo gën a naqadi arab quraish li leen gën a naqadi ci alquran mooy jumla ji may bëgg a wax fa in lam tafaalu if you cannot do it walan tafaalu and you will never be able to do so fattaqu naar allati waquduha annaas su ngeen mënta produire lu mel ni alquran te jamais au plus grand jamais du ngeen ko mos a looloo leen gën a naqati kon nag na ngeen bàyyi xel ñaar mooy mattu nit ak mattu xeer mi ma war a xambe safara la mattu nit ak mattu xeer mi mu war a xëmbee safara la te nit ya ak xeer ya mooy ñi nanguwul ne maa leen moom di ma jaamu fekk ñoo xam ne maa leen moom ñu di leen jaamu ñi nanguwul ne maa leen moom jaamu ma fekk ay xeer yoo xam ne maa leen moom ñu di jaamu xeer ya xeer yee sax du ñu yëg mbugal ma ñoom ay instrument la nekk rek parce que ñoom wax nañ yàlla ne ko yëguñu ne sax dañu doon jaamu yàlla nekkoon nag yéen laay jël nga nekk instrument yu ma leen di mbugala mbugale waaw xeer safara du ko lakk mukk waaye dafay dimbale safara pour mu mën a lakk ki weddi yàlla yàlla nañ ci yàlla boole musal mu ne wa ida kanat maani l ayaati hakada wa ida kanat l ayaatu falaha maan falaha maan ndax maan yi yu doyu la mu ne déedéet laha maanin ka mawji lbahri fi madadin wa fawqa jawharihi fi lxusni walqiyami fala tuaddu wala tuxsa ajaibuha wala tusaamu ala aliktaari bissaami waaw laa aaya alquran yi am nañu maanin maanaa yoo xam ne ci bëri ka mawjil baxri comme duusi géej la fii ma dadin ci tëbb sax nag waaw fii ma dadin ci bëri fii ma dadin ci tëbb sax fii ma dadin maanaa ci ndollal sax nag c'est-à-dire euh, alquran lim am ci maanaa dafa bëree bëri ba mel ni duusi géej gi mu ne sax nga multiplier duusi géej gi ci xadd euh, boo xam ne la nihaaya la maanaam multiplier ko par lu kenn mënul xam ñaata la maani alquran yi toll na noonu ëpp na loolu e, li ciy tegtal mooy ñaata junney tafsir la ñu bindagum ñaata junne ci tafsir yooyu ñu bind ñoo réer ñaata junne ci tafsir yooyu ñu bind lañ moolagul ñaata lañ ci mool Eh, ibnu taymiya te mu ne liir naa téeméeri tafsir yu bokkut te benn ci ñoom doyul walis morom te kooku ci septième siècle la doon wax loolu ci hijri boobaak léegi ñu ngi ci quatorzième siècle hijri wala quinzième siècle boobaak léegi ñaata tafsir ñoo ci amaat te tafsir yooyu ñu génne li ci xel yi te génnewuñ ko moo ko ëpp li ci xel yi ñu génne ko jàngale ko ci daara yi ci làmmiñ te binduñu ko moo ko ëpp mu ne ni duusi géej yam ci maanaa alquran am na ko ci maanaa ni duusi géej yam ci tëbb ci ndox du arrêté mukk alquran am na ko ba wëttu ba ëpp ko sax qul law kaana albaxru midaadan li kalimaati rabbi la nafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw shina bi mithlihi madadan moo tax mu ne fii madadan sayidna ali ibn abi talib nee na bu bu ma indiloon bu ma neexoon suratul fatiha danaa ci firi loo xam ne dana mat juróom-ñaar fukki sufi gëlëm te du jeex boo ne bismillahi rek bismi rek boo ko naree firi allah kenn xamagul ba léegi li muy firi ah arrahman rahim dégg yàlla rahmaanam ci àdduna ak rahim ci àllaxira noo koy firee dégg ci waa aljanna ak rahmatoom ci waa safara noo koy firee parce que waa aljanna lu leen neex la ñu am te terewul ñu ngi ci suufa xaariyatu yàlla nan nga koy firee hmm? fala tuaddu nee na waaw laha maanin ka mawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi nag waaye kawe na wurusi géej nag fil xusni ci taar wal qiyami ak ci valeur waaw moo ëpp géej ndox boo multiplier woon géej yépp maani alquran yi nga leen di tëbb nga leen di tëbb par lu kenn xamut di leen multiplier par lu kenn mënta xam maani alquran ko ëpp waaye naka noonu it géej gaa bëri na wurus de wurus bi rafet nañ lool am nañ valeur lool waaye dabuñu alquran nag dafa di yii lañ mën a misaalee waaye alquran jaaduwut sax ñu koy comparé ak géej ak ya ca nekk rek waaye nag li ëpp ci li nit mën a misaalee lu bari mooy duusi géej ni muy tëbbee ndox li ëpp ci li nit mën a eh, li gën a rafet ci liñ mën a misaalee taar mooy wurus ak valeur am ak taaram ak waaye compare ci ak alxuraan yooyu duñ dara waaye fokk nag ñu indi leen ngir jegeel maani yi moo tax ba eh, falaatu addu deefu lim wala tuxsaa deefu mën a takkit ajaa'ibuha kéemaani alxuraan yi kéemtaani alxuraan kenn mënu ko lim kéemtaani alxuraan kenn mënu ko takk fala tuaddu wala tuxsaa ajaa'ibuha wala tusaamu ala al iktaari bissaami fala tuaddu deefu mën a liim wala tuxsaa deefu mën a takk ajaa'ibuha kéemtaani aaya alxuraan yi wala tusaamu te deefu melal tamit alal iktaari ànd ak bëril jàngam ànd ak bëril cettantalam bi sa ami ci yokkat doo fekk mukk kuy jàng alquran di ko settantal mu yokkat te téere budul alquran boo ko liiree ñaar yoon ñetti yoon rek mu commencé la sàppi alquran na nga gis ñoo xam ne bés bu sedd nañ ko wàccee ñoo xam ne ñetti fan yu nekk dinañ ko wàcce ñoo xam ne semaine bu nekk dinañ ko wàcce ñoo xam ne ci la ñuy bind ñi ci wàllu balaaxa bi ñi ci wàllu naxu bi ñi ci wàllu luga bi ñi ci wàllu ñi ci wàllu ñi ci wàllu ñi ci wàllu ci côté scientifique yi ci coté te du tax mukk ñu yokkat bés boo ñëwee rek mu gën laa neex bés boo jàngee rek gis ca loo ca gisul woon démb wala tusaamu deefu mellal bi sa ami ci yokkat alal iktaari deesu leen melal bi sa ami ci yokkat alal iktaari ànd ak bëri qarrat biha aynu qaariha fa qultu lahu laqad gafirta bi xablillahi fa atasimi qarrat dalee na qarrat seddee na biha ci aaya alquraan yi aynu qaariha bëti aji jàngam muy jooy rongañ yoo xam ne rongañ yu sedd la te rongañ yu sedd foo ko fekk rek mbégére la rongañ yu tàgg nag njàqare la kiy jàng alquran da jis gis xolam sedde ca da ngay gis bëtam tooyee ca fa qultu lawoo ba ma ko fekkee mu nekk ci xaala ba ma ko laqad gafirta wallahi laqad gafirta ngëñ la laam la gëñ naa ne tuuf nga bi xablillaay ci buumu yàlla gi mooy jàpp nga ci buumu yàlla gi nga ci buumu yàlla gi jot nga ci buumu yàlla gi nag faatasim nang ci mooy waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu at mooy buum gi dox suñ digganteeg yàlla ni nga xamee ne Seydina Ali ibn Abi Talib melal leen na ko alquran ne mooy buumu yàlla gi yàlla ne ci alquran na yàlla gi te bu leen ŋaayoo wala wala tafarraqu ci beneen mu ne wala tanazau fa tafshalu wa wasbiru te mooy ci nag mooy jëfee ay ndigalam bàyyi ay teram na ñu ko yàlla mën loo ku jëfee ay ndigalu alxuraan bàyyi ay tege tere alquran mooy mooy nga ci buum gi nga xam ne moo lay jotale ca këru teranga yàlla yàlla nañu ci yàlla boole ci barke yonent bi sallallahu buum goog nag ku ca jot bu ko bàyyeeti de jàpp ca rek muy xëcc ngay dem mu ne kooku mooy ki gis côté jamal bi waaye am na it koo xam ne jalaaliyatu bi moo koy yóbbu intatlu haan dem jàng nga leen xiifatan ngir nga ragal min xarri naari lawan tàngaayu safaraay lava tur la ci kalla innaha lava nazaatun lava nava nazaatun li shawa tur la ci turu safara yi wala xeet la ci xeetu safara yi wax yàlla dana tudd jahim dana tudd sair dana tudd lawa dana tudd xëy dana tudd wayl dana tudd xutama dana tudd jahannama ila axiri ma dakarahu subhanahu wa taala nasalu llaha tabaraka wa taala lana wa lakum alaafiyata min annaari wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amalin amin mu ne in tatluwa ndem jàng nga alquran xiifatan ngir ga ragal min xarri naari ladan ci waaw tàngaayu safaraay ladaa kallaa innahaa ladaa at fata ba nga jàngee rek nga fay xarra ladan tàngaayu safaraay ladaa min wirdihaa ay min mawridihaa min ci rotuwaayam ashabimi gay aji tat ci sedd xam nga boo jëlee safara dugal ci ndox safara fay soo jëlee safara sot soo jëlee ndox sotti ci safara safara fay dañuy wax ne Seydina Ali dafa wax ne li yàlla bind montagne yi ñoo ci gën a dëgër ndax ñoo téye suuf si mu ne déedéet montagne yi fu ko weñ fekk dagg ko kon weñ a gën a dëgër weñ weñ muy xadit feex mu ne kon moo ëpp kàttan ci mbindeef mu ne waaye feer fu ko safara fekk fay ko lakk ko kon safara ëpp kattan ci mbindeef yi mu ne waaye safara fu ko ndox fekk fay ko mu ne kon ndox mu ëpp kattan ci mbindeef mu ne waaye ndox eh, niir yee ko yenu ngelaw li di ko yóbbu fu ko neex kon ngelaw mu ëpp kàttan ci mbindeef yi mu ne waaye ngelaw doomu aadama moo koy jël di ko conditionné gis nga yaa ngi jël ngelaw def ko ci sa air conditioner ba tax fi nga nekk bu fekkee dëkk bu tàng la mu sedd bu fekkee dëkk bu sedd la mu tàng bu dee oto nga yore mu ruuya mu def ci ngelaw wala charrette wala leneen mu ne kon doomu aadama ëpp doole ci li yàlla bind mu ne waaye doomu aadama su màndee fu ko sa fu ko sàngara fekk daaneel ko kon mandité wala sàngara moo ëpp doole kon mu ne waaye sàngara yit fu ko nelaw fekk mu tàqale kook moom nit bu nelawee ba yeew rek mandité ma dem hmm? dégg naa ñu ne ba mandé demal sëri eh, bul yàqal ñu naandagul xam nga ñu defe naa woy la waaw yal nañu yàlla busal ci mandi ci sàngaray àdduna yal nañ suñuy mandi nekk ci sàngaray xam yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ak sàngaraay aljanna yal nañ ko yàlla boole defal ñu ne waaye nelaw nelaw hëmm moo ko ëpp doole hëmm eh, mooy kii tëdd koŋ-koŋ eh, dañ la jox convocation bi de nee nañu nangam eh, bi xew fële muy mm, meurtre walla lu ko niru ci ñiñ ci tudd la préparel euh, ñu ànd dem nangam wala bu suba boo xëyee dinañ la jël si ngeen baal ma dafa xaw a am dog dog tuuti xam nga kooku dootul nelawati de wala ki ay njabootam dugg ci avion mu ñibbi këram ne dafa tëdd nelaw tuuti le temps ñooñ di àgg woo ko mu fi mu tëdd rek gis tele bi naan avion bi jóge woon New York yal na leen ci yàlla boole musal jëm barab sàngam dafa daanoo dégg nga ña ca nekkoon yow balaa nga nelawati da nga xam sa njaboot fen la ñu mujj loolay xëmm xëmm nag dafa am munaasaba ak himmatu waaw ah, borom yitte nag dara du ko teree nelaw nde nelaw sax dootul bokkati ci vocabulaire waaw ah, nelaw daf koy not rek waaye dootul ko sàkku lahu himmamun laa muntahan li kibaariha wa himmatuhu suxra ajallu min ad-dahar moom la Cheikh na Tidiane daan répété te yonent bi lañ ko woyoon waaw ma tey ñu ne Cheikh Hadj Malick eh, dañ ko mos laaj ne ko dégg nañu ne doon nelaw mu ne ah mos ngeen gis ku dul nelawa ah, waaye du ma ko sakku mooy dafay ne ci li war a ne ba nelaw fekk ko ci eh, Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop nee na bés nekk nag Cheikh Ibrahima Niass ci hôtel waaye du xam ban heure lay nelaw ndax fu mu toll mu ngi dégg mu jàngal Alxuraan wala mi ngi dégg mi ngi zikar wala bu fajar di bëgg a jot mu ngi dégg muy déglu information rajo Londres ne bi ma nuy ma loolu nag nekk def ma équation bi ma nuyu si nuyoo si ci suba gi mu ne ma xanaa mu ne ma xanaa sama ñàkk ne yàlla jaaxal mu ne ko ah wax dëgg yàlla di jaaxal na mu ne ko man daal foog naa ne li ma bëgg a def xajul ci sama dund gi ndeysaan na ñu yàlla jox yitte yooya ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi léegi nag mu ne bu fekkee ne danga ragal safara moo tax ngay jàng alquran safara alquran rotuwaayam rotuwaayam bu dee ndox la ndox mi sedd na ba nga xam ne boo yeggee ci gémmiñu ci pindu ndox mi rek dara la la njëkk safara ak lum rëy rëy ci ndoxum alquran rek moo koy fay maanaam kiy jàng alxuraan daal mucc na ci safara ndax alxuraan yonentu nee na nee de jàng alxuraan fa innahu yati yowma alqiyamati shafian li ashaabihi waaw mu ne in tatluha xiifatan soo jàngee alxuraan ngir ragal min xarri naari ladan atfaata ba nga ko jàngee rek nga fay xarra ladan min wirdiha shabimi shabimi eh, mooy eh, seddaay boo xam ne bu ndax ni nga xamee ne euh, alquran euh, ndox maanaam euh, li tax mu nuurale alquran ak ndox parce que ndox mooy jox mooy sababu dund jëmm yi almaau sababu xayaati l ashbaax waaye alquran nag mooy sababu xayaati l arwaax waaw yàlla nee ne lu dund la ci jëmm yi ndox laaj ndox ndox wa jaal na min almaai kulla cheyin xay ndox a cay cosaan waaye it arwaax yépp alxuraan la leen di dundal moo tax mu niroole koog alxuraan mu niroole koog ndox file nee na laay alxuraan daal boo leen di xool ka annaha ka annaha alxawdu tabyaddu alwujuhu bihi min alcusaati wa qad jaauhu kalxumami ka annaha daanaka ñoom alxawdu ndoxum déegu yonentu sallallahu alayhi wa sallam bii kawsar la nga xam ne tabyaddu dana weexee alwujoowu kanami bi ci moom wala déegu ndoxum xayaa ni yonentu bi sallallahu tuddee ci xadis bi mu ne ka annaha daanaka alquran ka annaha daanaka laaya alquran yi wala dafa mel ni ñoom alxawdu ñooy déeg ba ca yowmal qiyaamati déeg bi nga xam ne tabyaddu dana weexee alwujoowu kanami bi ci moom wa minal usaati kanam yaa moom kanam yi way mooy yàlla yi lañu waqat jaa awu te dikkal nañ ko ñuul kukk lëndëm kurus kal xumami mel ni këriñ déeg yowmul qiyaamati lañ koy tuddee wala yowmul axirati wala daarul axirati ndax bës ba du jeex mukk walla bés ba jeex na ba ñëpp dem aljanna ñëpp dem safara yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ne doom waa aljanna daañ dugg aljanna Eh, yàlla dugal ci yërmandeem ku ko neex waa safara dugg safara ñu daldi wax ne xool leen ku ngeen fekk ci xolam lu toll ni misxaalu zarra ci liimaan walla lu toll ni xardal xabat min xardal ci liimaan eh, génnee leen ko biñ leen génnee yonent ne ñu génne leen xumaman qadim taxashu moom la boroom téere bi jëfandikoo fii nee na ñu dugal leen ci naxarul xayaati wala ci nax ci naxarul xayaa yi waaw dund wala dexu kersa nee na ñu daal di sax ni pepp di saxee dégg nga eh, mu misaal eh, ma ba ne alam tarawha kayfa taxruju safraa dégg nga buñ leen eh, ñañ ñëwee noonu nag buñ leen dugalee ñu sang leen ñu daldi di set wëcc daal di leer naññ gannaaw bu ñu lëndëmee kurus mel nii Euh, naka la tuddati këriñ mu ne alquran nag ni nga xamee ne déeg boobu noon lay sangee ñu mooy yàlla ñiñ dugaloon safara ba ñu set wecc leer nañ ñi ñu dugaleen aljanna mu ne bàkkaarkat bi tamit buy jàng alquran noonu la alquran di def ak moom daf koy waar fàttali ko yàlla ngir mu mën a jàjju ñëw topp yoon wi alquran fóot ko ba mu set gannaaw bu mu bokkee ci noonu yàlla yi mu nekk ku yàlla jox tawfiq mu mujj bokk ci xëjji yàlla yi ka annaha al hawdu tabyaddu al wujuhu bihi min al usaati wa qad jaauhu kal xumami sallallahu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama mi nga xam ne alquran mi mucjisa la ci mucjisaatam yi wala mooy mucjisa dëgg-dëggam yamul foofu mu ne waka siraati wala mi ngi mel ni sax yoon wu jub kocc wi wakal misaani wala mi ngi mel ni misaan ba nga xam ne moom la ñuy peser jëf yi siraat fii mën na nekk yoon wu jub wi wala mu nekk siraat ba ca yowmal qiyaamati siraatun jisruhu mudda ala naari liman ama amin ya rabbal alamin yàlla la yàlla wattu yow tamit mu ne waka siraati alquran dafa mel siraat ma maadilatan ci màndu ana luy loolu siraat yàlla daf ko teg ci kaw jahannama wa in minkum illa waariduha dégg nga ñépp di jaar ku fa jaar fekk war nga texe mu bàyyi la nga dem lu muy sew-sew lu muy yëngatu yëngatu lu muy lëndëm lëndëm du la daane ndax màndu téem a tax waaye ku fa jaar tamit loo bari woon daraja daraja loo siiw woon siiw woon luñ la foogoon ne nitu yàlla nga wala boroom xam-xam nga luñ la foogoon ne ku baax nga gannaaw waroo jàll texewoo rek mu bàyyi la nga wadd ka anni bika tan xattu ila laxdi wa tan gattu wa qad aslamaka rahtu ila ad yaqa min sammi hunaka aljismu mamduud liyastakilahu duud ila an yanxara aluud wa yumsi alcawmu qadram wa min bacdu fala budd min alardi ida ctud siraatun jisruhu mudd ala annaari liman am fa kam min murshidin dall wa min di izzatin zall wa kam min aalimin zall fa kam min murshidin dall wa min di izzatin zall wa kam min aalimin zall wa qaala alxatbu qad tam fa baadir ayuha alxumru lima yaxlu bihi almurru fama aqla wa qad kaada yahilu umru wa ma aqlacta an dam wala tarkan ila dahr wa in laana wa in sar fatul faa kaman ixtar bi afaa tanfudu sam wa xafit min taraqik bi afaa tanfudu summa wa xafit wa xafit min taraaqiik fa inna almawta laaqiik wa saarin fi taraaqiik wa maa yankulu in hamm wa janib saara alxadd ida saacadaka aljadd wa zumma allafda in nadd fa ma ascada man zam wa naffid an axi lbath wa saddiqhu ida nath wa rumma alcamal alrath faqad aflaxa man ram wa rish man rishuhu naam wa rish man rishuhu na xas bima amma wa ma xas wala tasa ala naqs wala taxris ala lam yal nañu yàlla musal ci safara ak lépp lu fay yóbbu nit yaa rabbi mu ne alquran laayaami ci màndu siraat lañ rek wala misaan bi nga xam ne moom la ñuy peser jëf yi baskilu jëf yu baax yi janoog aljanna leer nañ baskilu jëf yu bon yi janoog safara lëndëm kurus yal nañ ci àlla boole musal niñ màndoo fa amma man xaqulat mawazinuhu fa huwa fi ichatin raadiya wa amma man xafat mawazinuhu fa ummuha haawiya ndax jëmm la ni ko ahlu sunna wala du jëmm ni ko mu'tazilatu gëmee ndax alxuraan daf koy jamu waaye ci sunna ñëw na nekk misaan ñëw nekk misaan wa ka siraati wa kal misaani maadilatan moom daal fal qistu mandu min gayriha ci lu dul aayay alquran lam yaqum du mos taxaw fi ci nit ñi mandu mënta taxaw mukk mënta nekk mukk dara lu ñuy tuddee màndu mënta tudd màndute ba mën a àtte nit ñi àtte ba war gu bu màndute ga jógeewut ci laaya alxuraan annaasu fii nag mooy képp koo xam ne ñëw nga li ko dalee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba àdduna tukki ndax li ko jiitu màndu ca ñoom mooy téere ya nga xam ne ñoom la yàlla wàcce woon waaye na téereem bi moo ñëw folli téere yooyu yépp sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wax ne ah sunna kat ak mandute la wala lij maaw ak mandute la ndax yàlla nee na wa ma ataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu ak atiu llaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum waaye ñu ne lij maaw ak sunnatu yépp seen niituwaay ak seen cosaan mooy alquran sunna du wuteeg alquran mukk lij maa it du am benn musta liste di koy fu koy defee eh, lu dul ci alxuraan ak sunna ki nga xam ne alxuraan mooy euh, moo ko ku afee waaw sunna tafsirul quran la rek waaw aha wa kasiraati wa kal mizaani maadilatan falqistu min gayriha fi nnaasi lam yaqumi laa tajaban li xasuudin raaxa yunkiruha tajaahulan wa huwa aynul xaadiqil fahimi mu ne bu fekkee ne lii yépp am na nag ci alxuraan ba pare terewul nga gis ñoo xam ne ñu ngi koy diingat xanaa loolu dana la jaaxal nga ne ah kay mu ne bu mu la jaaxal nag laa taajaban bul héemu li xasudin ci aji añaan ci xasudin ci añaana koon la ajaba min ak ajiba li moo am dana jalgatee laam dana jalgatee min mu tànn laam gi nag li xasoodin ci aji añaan goo xam ne raaxa mujj na raaxa gontu na raaxa dundam yépp daf ko nara a dépensé yunkiraa di weddee laay alxuraan tajaahulan ngir ga réeréerlu waaw wa huwa ta moom kat boo ko boo ko xoolee aynul xaafiqi muy jëmmu aji ñëw alfahimi kay déggakoon daa fekk koo xam ne moo la gën a xam fuuf li alxuraan di wax ne dëgg la moo la gën a dégg fuuf li alxuraan di wax ne eh, li alxuraan di wax ci ay maani ak ci taaram ak rafetam ku mel ni Abu Jahli nag ñu mel ni moom nga xam ne fañ daan sàcc sax di déglu ji yonent bi sallallahu alayhi wa ndax rafetu ay alxuraan waaye nag rëy ak bañ a ñàkk seen statut moo tax ñuy jéem a réer réerlu di wane ne lii daal duut loo xam ne nii lu nekk dëgg la duut loo xam ne lu noosewu la duut loo xam ne nàngam la te yàlla nee na du ngeen ci gis mukk wuute ngeen ci gis mukk wuute moo tax léeg-léeg nga gis ku naan la téere sàngam borom bind na ko nee na nàngam ak nàngam te ki ko bind jàngal alquran dafay dem fekk benn translation te borom translation bi mën naa am sax arab yootam baaxul ndax lépp ci translation yi borom seeni i borom seen arab yi du baax wala seen borom arab bu baax bi anglais ba euh, du baax wala français bu koy traduire du baax te tamit alxuraan nga xam ne dafa bëri ay anam kooku jël ca benn anam rek wala jëlul ci sax anam ba ca war ndax aaya bu nekk balaa nga koo mën a firi da ngay xam siyaaq ba xam li xaq ba da ngay xam la ko njëkk ak la ko euh, jiitu ak la ko tax a jóg contexte ba te itamit doo jël benn laaya rek firi ko alxuraan yépp as a whole ngay jël pour mën a dégg alxuraan nga gis nag koo xam ne nii yooyu yëpp amu ca benn te imam Suyuti nee na ba noppi soxla nga fukki xam-xam ak juróom pour mën a firi alxuraan koo xam ne nag amu ci yooyu benn mu dem rek fekk benn laaya mu firee ko nag ko neex euh, dégg nga commencé dingat mu ngi mel ni ki doon wax naan alxuraan dafa am contradiction ndax mu ne na Mariam doomu Imran la Moussa doomi Imran la te Moussa ak Mariama ay junne at dox na seen diggante te xamul ne Imran mi jër Moussa bokkul ak Imran mi jur euh, Mariama euh, donc bu ko defee ki xamul nag euh, mu koy mu loolu mën na koo mën na koo mën na ko jàdduloo fekk dafa déglu ku ko gën a réer waaye gën koo gën koo jonge mi ngi mel ni Abdou Manaf mi nga xam ne mooy oncle lu yonent bi bokkul ak Abdou Manaf mi nga xam ne maamaatu yonent bi la donc soo ne eh, yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko Aliyu ay cousin lañ parce que Aliyu doomi Abdu Manaaf la ba pare nga ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam doomi Abdullahi la Abdullahi doomi Abdul Muttalib Abdul Muttalib doomi Hashim Hashim doomi Abdu la nga ne kon mën ñëw ne la nan la maamaatu maamam di nekke doomi Abdu Manaaf ba pare son cousin direct di nekk doomi Abdu Manaaf fekk ñaari Abdu Manaaf yi ñoo bokkut mu ngi noonu alquran tamit bu indee wa maryama bnati imran allati ahsanat farjaha bokkul ak muusa bnu imran maanaam ñaari imran yi duñ benn mu ne loolu boo ko gisee rek buum la yéem ndax kañaan dana fatt xol ba borom du nangu dëgg dégg nga rëy dana fatt xol ba borom du nangu dëgg bañ a ñàkk statut dana fatt xol ba borom du nangu dëgg mu indi la misaal nag moo xam ne mu leer la mu jege la ndax misaal maxsuus la mu ne qad tunkiru l aynu dawa shamsi min ramadin wa yunkiru lfamu taama almaai min saqabi qad tunkiru bëri na bu weddee al aynu bët daw a shamsi leeru jant bi min ramadin fekk feebar bu ñuy wax wanentoo ko jot ki wanent ñépp ne jant baa ngi nii mu ne nii mënta gis jant mu ne jant amut ndax weddi gi weddi ne jant amut day tax ñu gëm ne jant amut walla dañuy koy dimbale mu faj feebaru wanentam bi bu wéree xam ne jant am na wa yunkiru amaan na wa yunkiru dana weddi bari na bu weddee bari na bu fakkee alfa mu gémmiñ taamal maay cafkaay ndox min sax mi te fekk feebar ko ko yóbbu kii feebar ba gémmiñam lewet ba bu naanee lu saf sukkar wala bu naanee ndox du ko saf dara mu lawet ak moom ndax day tax ndex ndox lawet ndax day tax ndox bu sedd dootul naan dootul neex wala dañuy fexe dimbali ko ba feebar bi ci gémmiñam wér maanaam ki xolam feebar tax muy weddi alxuraan du tax alxuraan di alxuraan jant jant la bu dee ki wantu sax mënu koo gis ndox neex na bu dee ki gémmiñam di eh, eh, ki gémmiñam eh, feebar ba tax mu lewet munu ko sentir tabaarakallaahu bunt boobu la limaam Buusiri rahmatullahi alayhi ñëwoon ak ñun tey tabaarakallaahu mel na ni ah guddi gaa ngi gën jege si waaye weer wi yëpp tabaarakallaahu gàmmu la suba incha allahu danañ ànd ak zawiya Seydil Hadj Malick bu eh, New York bi macha allah ñu ñu amul morom ñoom it bu nekk ña nga ca eh, burdatul madix bi waaye alxames eh, waa New York yëpp daañu màggal yonent bi sallallahu alayhi wa ñu nit daañ ko def fii ci jàkka ji ci Staten Island bi idnillahi tabaraka wa taala ni ko àdduna yëpp di defe ni ñu àdduna yëpp it di seetaane ñu ngi leen di nuyu suñu mbokk Xasan Clark tabarakallahu eh, ak Cheikh Mansour Cheikh Mansour Abbas Sall Sidi Hassan Clark fii waa Gaana la Sëriñ Mansour al Imarat al Arabia al Mutahida eh, ak Soxna Jaara Mbakke ak Cheikh eh, Shabaz wax naa leen ko démb suñu mbokk waa Inde nekk Brooklyn ak Sidi Boudi Antou ak. waaxid min ahbab rasulillahi salallahu alayhi wa sallam sidi abul fadl Kuufi di soppi yonent bi salallahu alayhi wa sallam ca Nigéria soxna Mariam Dem Serigne Diop Birane ak Tijani soxna Suwazan Douta Seck ca Bronx macha allah soxna Absa ca Harlem soxna Absa Thierno Ndiaye macha allah ak Seyda Gogo Haydara ca. Cincinnati Sidi Ababakar Ababakar la de Ababakar Njaay waaw tabaarakallaahu moom it ñu ngi koy eh, nuyu eh, Sidi Sanji Brooklyn la di ku bëgg eh, diine ca masjidu taqwa Sayda Safiya Abdul bu Muslim Sisters of Staten Island tabaarakallaahu Sidi El Ba ak Awsin Jàmme ak Nuruddin Muritala moom it waa jàkka ji la macha allah waaye suñu mbokk waa Nigéria la euh, sax soxna Aïcha Karamoko defe naa suñu mbokk la ca Mali Seyda Aïchatu Aïchatu Lo ak Sidi Mansour Seck euh, Cheikh Mouhamed Cissé Sharifatu aji Aminata Dieng macha allah. Euh, tur bi leerul de soxna Tuumira Ndiir Diop macha allah ak eh, Nasr eh, Nasr ma Nasr gardien tur bi xaw na eh, kii ak man de kii di du waa Ndakaaru amoo ak El Hadji ak Sidi Fula Mansa Sidi Dramé Dramé ñu ngi lay macha allah ci ñaan yi ak. Sidi eh, Madické Dramé fële itali ante bu Serigne Babacar ak ñi nga xam ne tabaarakallaahu eh, jiitu nañu yépp waaye ñi teew nii rek laa mën a gis fu mu toll nii nuyu leen ziar leen di ñaan suñu boroom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa mu laal suñu bopp yi ba eh, soxla bu ci nekk ak jafe-jafe bu ci nekk mu fëggu feebar bu nekk ci yaram yi mu wér. Eh, soxla yu ñu am mu fajal ñu ko eh, bëgg-bëgg bu ñu am ci zahir ak ci baatin mu defal ñu ko te eh, lépp loo xam ne lu ñuy bëgg la mu dëppook bëgg-bëggu yàlla bëgg-bëggu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal ñu boppam xamal ñu yonent bi boole ñu ci xulafa um yi boole ñu ci ñi nga xam ne fuñ toll duñ tàqale koog yonent bi ci xis duñ tàqale koog moom ci maanaa yàlla may ñu yàlla yàlla may ñu yàlla yal nañu yàlla may yàlla yal nañu yàlla may yàlla yal nañu may yàlla yal nañu yàlla may yàlla darajaay yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal yàlla xamal boppam xamal ñu boppam zaatan wa sifatan wa may ñu ñu jeex ci moom tàkk tàkk tàkk xata nabqa bihi subhanahu wa taala lépp loo xam ne lu ñu am la ci àdduna yàlla na yem ci loxo yi ak ci poche yi waaye xol bi yàlla na ci yàlla génnee lu dul yàlla ñu ci yàlla génne lu dul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di eh, dëkk suñuy loxo bu leen ñu fàtte ci ñaan jërë ngeen jëf incha allah